campagne bi metti woon na bi ñu ci mën a tirer rek mooy yaakaar am yaakaar ci ni population yi xam nañ lan mooy intérêt si Sénégal et puis dinañ ko dinañ ko def donc euh, loolu daal moo juddoo ci liggéey bi nga xam ne ñun liggéey nañ ko dem ci population yi waxtaan ak ñoom wax leen li ñu xam te ñu xam ni aussi ñun ay doomu réew mi lañ du ñu dank xaaxaam di ko dugal seen gémmiñ donc yaakaar la jur te yaakaar boobu ñu ngi ñaan yàlla sunu borom dëgëral ko tey ci ngoon fii du am incident yaakaaruma ko parce que fii li fi xew mooy nit ñi dañoo xamante trop fii ñëpp a xamante man wax dëgg yàlla sax man sécurité bi sax ñii gars yi ñoo dëgër bopp indi ko mais man jàpp naa ni soxloo ko jàpp naa soxloo parce que fii ku jàkkaarloog sama kanam xam naa ni xam naa yow yaay kan donc du ko mat.

donc euh, ñu ngi remercier administration bi aussi ci disposition yi nga xam jël nañ ko pour que vote bi mën jaar yoon loolu sant nañ ci bu baax wax deug yalla mais aussi di féliciter citoyens yi surtout euh, pour leur maturité ah pour leur maturité et wanewaat nañu ni encore une fois Sénégal dëkku démocratie la Sénégal dëkku ay nit ñu civilisé lañ c'est important. suma suma paré damay dem nani ataya comme mais duma dem nelaw comme ni président de la république duma dem nelaw damay dem nani ataya agni suivre affaire yi quoi.